suñ ko balancé il y a toujours deux défenseurs ou trois défenseurs donc on ko surveiller comme du lait sur le feu et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui suñu focaliser wu ci Sadio di nga gis que Ismaïla mom tamit quelquefois day am liberté et Sadio a essayé de faire jouer Ismaïla Ismaïla a essayé de faire jouer Sadio ce qui veut dire qu'on a deux lances de fer ce qui fait que notre attaque est imparable ce serait très euh, difficile de mun leen museler. Mhm. boobu yaa ko dégg noonu comme tamit euh, au sein de l'attaque on parle trop de Sadio Mané mais tey jii tamit Ismaïla Sarr wane na tamit ben visage bon, franchement parler c'était pas bon lu ñu doon ci parce que c'est temps si ci blessure la jógee mais Aliou Cissé euh, ci kan bi kon lim doon xex ngir Ismaïla sar delu ci équipe nationale moom il a dit que Ismaïla sar fait partie des cadres te tey jii il a été tellement décisif. Hein. Ismaïla Sarr c' euh, c'est un pion essentiel. Euh, si fii nga xam ne moo di équipe nationale. def na ni percussion yu muy def partant du côté droit et en dehors de Sadio Mané. def na ni tay dañ ko dekkale gauche. wa wa mooy mo mo mo moo moo ko fi mën. mo fi moko moko moo ko équipe bi donc Ismaïla. match yëpp mel ne am na ku nekk ci ci ligne bi allô allo alekum aleykum salaam sëñ bi. waaw maa ngi leen di siyaar bu baax a baax. man la Ndiasse Gueye. nekk Italie. oui naka waa Italie ñëpp a ngi si jàmm. maa ngi kontaan trop ci di yi. di ci peuple sénégalais ci taxawaay bi ñu taxaw pour jàppale gaynde yi pour ñu mën a qualifier. c'est à vous ndax ndax match tey bi ku xam football xam nga ne match tey bi du match bu yomb match bu jafe la. Mhm. ndax Égypte dafa nekk équipe boo xam te ne équipe bu mag la. Mhm. nekk équipe boo xam te ni ay tappale moom naar yi football naar yëpp tappale la léegi nag Sénégal nag wax dëgg yàlla taxaw nañ taxawaay bi ñu war a taxaw xëy na yi ñu rate yàkkamti la ak yéene mais vraiment def nañ li ñu li leen war def nañ ko mhm. kon nag ñoo ngi kontaan trop ci GFM ak ëngul Sénégal yi bépp daal di kontaan liggéey di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a jëmal Sénégal yi ci kanam boole xool yi boole mhm. def ci réew mi jàmm def ci réew mi jàmm def ci réew mi xëy sax dàq ba fépp fu ndem rek am fa di kontaan trop ci gaynde yi noo ngi kontaan lool noo ngi wax dëgg yàlla noo ngi leen di gërëm jërëjëf. jërëjëfati mais nag àdduna noonu la lu jot. yàlla moom lu mu programme rek bu heure bu jotee bu soobee yàlla da nga ko jot yaakamte rek moo bon mhm. ndax Sénégal am nañ équipe bu football bu ne am nañ ko mais ci équipe bi nag ci la suñu borom euh, euh, defee ñu jël coupe d'Afrique wax dëgg yàlla def ay jëloor yoo xam te ne mosuñu ko am ñoo ngi kontaan lool ndax 2002 nii la deme woon ñu war na jël coupe coupe d'Afrique dem coupe du monde mhm. maanaam tey jii yalla def ne jël nañ coupe d'afrique ay dem nañ tiro bit gagné kon lepp rek mbir yalla nañ delloo lepp suñu borom rek sant yalla di wax alhamdulilahi rabbil alamin yalla yalla def jami senegal noo ngi trop ci sig ak euh, sen tv di contane lol ci bugan taxaway bi mu taxaw ci rew mi jërëjëf jërëjëf jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax ñu ñu wa italy nga xamne ne ñoo ngi waxtu bi ni ko waxee won rek sank présence euh, ki di euh, Ismaïla sar kon mën nañ wax ne il fait partie des cadres. non cadre. Il y a équipe nationale du Sénégal Il un grand match Il itam a un koo xam ne euh, soxla grand match. Il jour une technique vivacité euh, c'est dommage il a manqué de lucidité. il faut le rappeler parce que entre la 83e et la 85e minute si je ne m'abuse. il a arrêté deux occasions occasion ben caviar boo caviar bu leer nañ la. Euh, li nga xam moo euh, mi-temps prolongation bi itam amaat na ko euh, buñ ko ko encore sur le plat mais jàpp ni yo, yooyu dëgg le naam si biir match day am dafay arriver au plus grand jour. mais xam nga am match décisif comme tey jii nii il suffisait dara dara xewaatoon defe naa ni du ñu du ñu fàttaliku du ñu fàttaliku waat li nga xam football na ko la mu raxte la ñuy donc loolu moy euh, l'égoïsme du du sport quelque part <laughs> mais Euh, fort heureusement euh, encore une fois yàlla dimbali nañu ñu dem tir au but yalla dimbali nañu ñu am gardien bu baax yalla dimbali nañu am joueur yo xamné def nañu lañu waron def donté le Sénégal raté na ñaari penalty bi ci ñëk euh, kii nga xamné modi euh, Koulibaly on peut comprendre parce que amna na am ñu ñu ñu taxaw fofu rek amna ko ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. allo waaleykum ah, salam waaw Cheikh bi ñoo lay ziar fay woté waa sëñ bi man maa ngi wootee Amérique. ah kontaan nañ ci yéen di waa États-Unis tey no gisee noo jàngatee match Sénégal bi ak Égypte. waaye xanaa di kont xanaa di kontaan rek xanaa di kontaan rek bañ naa ko ba tey jii sax liggéey yiwuma <laughs> ah football bëri doole de waa liggéeykaay ne leen sama dëkk dafay football tey maa liggéey si ndax munu pression boobu mënuma koo mënuma koo endorser. Mhm. ma toog kër bi seet match bi. Mhm. waaye wax dëgg yàlla kontaan nañ trop trop trop trop trop trop wóor na yàlla. Mhm. Mhm. li ci nekk rek mooy xanaa. nañ ko yombalal dañ ko yombalal sénégalais yi nga xamante ne nii dañoo jóg pour jàppale seen équipe. dëgg la. ndax maa ngi seetaan ci suba affaire vente de billets yi. Mhm. ñi nga xamante ni nii demee na ko loolu rafetul ñaawloo na ñaawloo nañ ko. effectivement. ndax ñëpp dañoo booti ci gannaaw gaynde yii xam ne kat ñoo ñu représenté ci àddina bi fi mu nekk nii. waaw kon nag nañ nañ nañ nañ bu beneen yoonee ne daal nañu seet affaire de biir yi naka lañ koy doxalee bu ñëpp mën a kontaan. <laughs> waaw vraiment victoire bi victoire yu ñëpp la te yaakaar na ne àddina bi yëpp fi mu nekk nii vraiment marqué nañ suñ empreinte ci àddina bi fi mu nekk nii fi nekk nii ku nekk xam na Sénégal. jaajëf. jël coupe d' Afrique un peu qualifié coupe du bi gën a mag ci Afrique. loolu vraiment neex na trop tey te dong lañ ci am. waaw kontaan ñu ngi leen di ñu leen di sant di leen gërëm seen liggéey rafet na trop yéen waa Sen TV wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jaajëf yéen la ñuy jaajëfal bu baax a baax yéen ñi ñu teewlu tamit jaajëf en tout cas félicitations tamit ak waa États-Unis ñi nga xam ne waxtu tamit ñoo ngi ñuy euh, teewlu sur la euh, chaîne leader la Sen TV Mohamed Diop dafa mel ne comme région nga ñu ah tey moom mbégte la comme ah. mbégte mi la mbégte la pas manta ah. maa ngi lay nuyu di nuyu Ablaye Mbow sentiment de fierté et de satisfaction mais moi j'ai envie de de dire merci au peuple sénégalais euh, les supporters yi nga xamante ni ñu ngi woon ci stade bi te man gëm naa ni je parle sous le contrôle de Ablaye Mbow que ñoom ñoo def différence pratiquement parce que Boy euh, déjà à 7h du matin, stade bi euh, aux alentours du stade ñu ngi commencé à eh, euh, ngi <laughs> à pratiquement 12 h 13h stade bi commencé na euh, di commencé à ba après midi bi mu d'elle dell ak manière bi ñu supporter les Lions je pense que ni aujourd'hui mérité won nañu victoire bi qualifié coupe du monde mu une qualification bu nga xam justement dafa ñëw fait né ñun war nañu baye xel sur en Afrique parce que nous effectif bu baax parce que amnañu des joueurs professionnels nga xam capable en tout cas à ce moment yu y a difficile ñu leen ñu leen di a ñuy def la différence et que aujourd'hui pour la deuxième fois consécutive je pense que allé aller la coupe du monde euh, lu baax ci équipe nationale waaw waaw eggalil euh, eggal donc voilà <laughs> mooy li ma doon wax rek euh, qualification euh, bi nga xam dafa teglon en coupe du monde ça se voit que ni c'est vrai que ne équipe bi am na ci ñu nga xam te ni plus de sept ans ñu ngi fi ak ak le coach muy muy Aliou Cissé mooy dañ ci war a jàng tamit benn affaire ñu jël mel ne am na ko nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw Cheikh bi ñu ngi lay ziar asalaamaaleykum aleykum salaam ça va yéen a ngi si jàmm alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax fooy wootee Paris. oui Paris victoire mhm. vraiment content trop trop trop victoire eh. allo. oui allo allo maa ngi lay dégg wa la Samba depuis Paris. waaw ñu ngi lay ziar trop trop trop trop Vraiment, euh, je félicite euh, très bien toute l'équipe nationale du Sénégal, mhm. les dirigeants, le 12e Gaïndé. Ah oui, le 12e en tout cas, assuré aujourd'hui. Hein. L'entraîneur Alou Sissi. Alou Sissi, oui. Vraiment, nous sommes très contents. Les qualifications en Coupe, du Monde, ça nous fait très, très, très, très fiers. Quoi. Je, salue très bien mon petit frère euh, Khalidou Koulibaly. Oui, Koulibaly. Le ministre de la Défense. Je salue très bien. Il a assuré comme d'habitude, hein Oui, vraiment, il a assuré quoi. <laughs> Khalidou, c'est mon frère ah, le quoi. un vrai capitaine, Hein. franchement, parlé, un vrai capitaine, un, vrai, vrai euh, Vraiment, c'est le capitaine, je suis très fier de lui. Vraiment, je suis à Paris, euh, on a regardé le match, nous sommes très contents, vraiment, avec la qualification du Sénégal. C'est comme aujourd'hui, si nous sommes au Sénégal, quoi. Toute, la, population euh, sénégalaise qui se trouve à Paris ici est très fière. Ah ah, en tout cas, c'est la diaspora sénégalaise, hein <laughs> euh, Vraiment, la diaspora, nous sommes très contents. Nous sommes ensemble, hein, ne, vous, doutez pas, nous sommes ensemble. Et puis la Coupe du Monde, là, on va la remporter. Hein. Nous, on n'a pas de doute là. dessus ah, <laughs> on n'a pas de doute là dessus Hein, pour euh, aller aller e non, on, part pour amener la Coupe. Ah, mais il y a la Coupe du Monde du Sénégal, avec qui franchement, parler, il y a une différence. Hein. Ah non, on va, on va pour remporter la coupe. Vraiment, les, les Égyptiens là, ils jouent très mal, ils jouent dans la tricherie, euh, ils cherchent des pénalties, des coups francs, du n'importe quoi. Vraiment, mais sinon aussi. Surtout les balles arrêtées. Allô